mbokk asalaamaaleykum ñu des waxtu ngeen seen télévision nationale jot nañ xibaar ne tatanal ci suba ak léegi njël ci bopp xibaar yi ñu tuddee ko juróom-benn fukkeelu at COFEMEN président de la république Macky Sall nag delloo nañu ko njukkal bu baax a baax ndax taxawaayam ci wàllu njàng meek njàngale mi nga xamante ne rek def na ci réalisation yu mag a mag a mag moom ci wàllu boppam moo u ñaax rek kànga mi xam yooy yëngu ci lu ñu mel ci dëkk bi ngir nag ñu mën a dugal jëm ci wàllu xarala yu yees yi ci wàllu njàngale yom tout tànk yi maanaam école primaire yi li nga xam ne jëm ci wàllub ICS nag euh, nga xamante ne da doon génn ay tooke ca yóbbu ko ca géej gi ci dëkk bu ñu naan xonjo foofu nag euh, toxal nañu ko fa yóbbu nañu ko feneen dugal nañ ci toll si juróom-ñaar téeméeri million ci suñuy koppar loolu nag nekk li nga xamante ne rek moo tax ba jaww gu ñu dénk lépp la aju ci ñu demoon nemmeeku nag euh, jumtuwaay yi nga xam ne def nañ tamit toll si ñett ñeenti téeméer million ci suñuy koppar ñoo ngi jege ci nag li jëm ci wàllub feetub Noël yi nganaaw yi nekk li nga xam ne la soxla loolu la ba tax na nag daal nit ci euh, dend lañ ci gën a taamu waaye nag euh, ñi nga xam ñooy jaaykat ña nga toog di xaar clients yi bëreeguñu ndax nag euh, jàpp nañu ne jamonoy mbas mi la ñu nekk. mbokk ñi ngi leen di gërëm di leen sant ci tàmm bi ngeen tàmm seen télévision nationale la RTS defee topp xibaar di ci benn xibaar président la république Macky Sall moom ñu tuddee nag li nga xam moo jëm ci wàllub juróom benn juróom benn fukkeelu atub COFEMEN moom ci wàllu boppam nag dañu ko ràññee lool ci taxawaayam ci wàllu njàng meek njàngale mi waaye nag gis nañu daal ne def nañu ci ay réalisation yu mag a mag moom président la république moo ngi ñaax kàngam yi nga xam ñoo yëngu ci njàng meek njàngale fii ci réew mi

si dooleel njàng mi fii ci Sénégal ak jéego yu bari nga xamante ni ñu ngi ko siy nemmeeku. gannaaw njukkal loolu waxtaan wi mu ngi aju si ni ñuy ba gën jox science lu ni mel soxal lool président Macky ndax boo jëlee ndongo yi am bac at mu jot littéraire yi ñoo si ëpp fuuf njiitu réew li mu bëgg di ñu science te sax teel ko xale yi

si yokkute budget bi nga xamante ni moom la ñuy jagleel éducation école yi ñuy tabax yokku na itam salle de classe yi naka noonu élèves yi jàng itam diggante gën bëri loolu day dëggal gis-gis bu président Macky Sall am ci fexe ba tàggat doomu aadama yi jaarale ko ci xam-xam bu wër te wóor Gueye Ndiaye ca Centrafrique moom tolluwaayu dëkk ba tar na lool te nag ay bés benn ay bés mu des ci jongante politique yi waa euh, mbootaayu xeet yi nag ñoom ña nga fa ngir nag saytu la nga xam moo jëm ci wàllub tolluwaayu euh, dëkk ba ndax na gis nañu ay def defkatu ñaawteef yu gànnaayu daal ñoo fa nekk di lëmbee réew ma ñi nga xam ñoo seq na ku jëg politique ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu dàq jongante politique yi nga xam waroon nañu ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru décembre googu tolluwaay googu nag ki nga xam Babacar Ndiaye moom mi teewal mbootaayu xeet ga foofu ca Centrafrique mom mi ngi dalal xel yi ci walu wi ñu mel mi ngi ko don waxe ci euh, journal télévisé bu 20 h bu Touba nak dem démb ñu déglu ko. Centrafrique dafa nekk réew mi nga xamni presque depuis indépendance am ba léegi si ay crise politico-militaire rek lay nekk ay coup d'état ay contre coup d'état transition politique ba yalla def euh mu amoon transition avec madame Catherine Samba Panza 2015, nous organisé élection présidentielle et législative. Président euh, Faustin Archange Touadéra Dernière élection. Donc, exercer mandat, mandat Wardier, le 30 euh, mars 2002. Euh, mandat Wardier le 30 mars. Donc, nous allons changer élire président pour PES. Alors, l'ONU, moi, j'ai un problème parce que tout simplement, euh, François Bozizé pour pour cour constitutionnel euh, Nangouko Euh, et moom tam aussi euh, mu eu une décision pour cour constitutionnelle après eu une décision mais en même temps aussi décider soutenir Benin candidat mais lolo taxul aussi mon un plan bi nga xam ne amoon na ko mooy élection du am mon dem alliance avec un groupe armé groupe yi nga xam ni signé ak gouvernement bi ñu accord de paix depuis le 6 février 2019 ñun def nañu démarche bu nekk si moom pour ni ko na bàyyi xeex boobu na bàyyi groupe ne yu muy àndal yi te dellu si si élection yi processus politique mais defu ko mu commencé organiser ay attaques contre certaines positions yi nga de l'administration, contre les préfets les sous-préfets contre également les forces de défense centrafricaine, euh, comme les forces armées, contre également la police et la gendarmerie qui attaquent cette euh, euh, base. Attaquer également forces des Nations Unies. Nous sommes aussi une riposte ces attaques. Moi, suis euh, vraiment très vous metti à Djuma Bingen à samedi. Euh, Yalla def que nous man maîtriser la situation bi, bloquer progression des troupes, xamni troupe yi nga xamni bloquer len ba situation bi ñoo koy contrôle yu baax Nations Unies à travers la MINUSCA euh, la force de la MINUSCA militaires militaire du MINUSCA yi am ak euh, policier yu ñu am euh, militaire gouvernement bi ak police ak gendarmerie gouvernement nous ñooy ensemble pour ñu ba bloquer progression troupe yooyu ba sécuriser zone Nous ñoo ngi commencé faire joxe carte électorale population yi il dem di retirer sa carte d'électeur pour participer à élection yi nga le 27 décembre lool motax ñu mobiliser bu baax a baax baax pour assurer sécurité campagne électorale bi sécurité candidat yi nga xamni aussi dañuy participer ces élection ndax loolu conseil de sécurité nations unies mom moñu jox mandat boobu ñun MINUSCA ñu dimbali gouvernement bi ci mbirum sécurité ci mbirum logistique ci mbirum matériel pour que l'élection ait eu, a si on ak si si ñuy depuis au moins maintenant presque à a Le conseil de sécurité également donné un mandat pour nous faire euh, coordonner le bi nga xam ni bitim gouvernement centrafricain pour nous am copper, yudoy, pour nous organiser l'élection, lolo aussi ñu Nations Unies ñu taxaw Union européenne ak yeneen partenaires, pour faire ba xaalis bi même la élection yi laaj ñu mobiliser pour l'essentiel Khalis Bobou ba mëna engagé engager élection yi 27 décembre plus de 21 millions de dollars mo le budget bi le budget bobu mën ni pratiquement amna légui léegi ñoo ngi ci semaine bu campagne électorale bi euh, commencé na depuis 12 décembre Nous ngi war euh, le 25 26 candidats yi noppalu. 27 ñu dem élection donc semaine bi nga xam ne mo dess ñi nga xam bëggu ñu élection am ci réew mi ñoom ñoo bëgg perturber campagne bi indi ay xulo ak ay ŋaañoo fexé ba ragalloo population yi pour ñu bañ génn dem bilit ci carte pour ñu bañ génn dem voter ji le 27. si lool nag lañu taxaw avec tous nos partenaires gouvernement centrafricain laaj na ndimbal ay réew yi nga xam am na ñom diggante bu baax muy russe euh, russe aussi ñëw nañu démb indi également ay soldats ak matériel laaj na également ndimbal gouvernement bi Rwanda Rwanda aussi yónnee na ay téeméeri téeméeru nit ñun tam MINUSCA ñaan nañu conseil de sécurité également mu yokk suñ doole pour ñu permettre ñu prévoir toute éventualité parce que tout est possible loolu aussi yaakaar naa ni conseil de sécurité dañu ko nangul pour que euh, suba wala gannaaw suba ñu am euh, euh, doole yu yu bees pour ñëw fekk si li nga xam ne am nañ ko ba pare pour mën a assurer kaaraange population yi kaaraange citoyens yi pour que élection yi mën a am ci jàmm ak salaam. mu doon Mankar Ndiaye ZLECAf ñoom nag amal nañu seen ndaje kuréel ga nga xamante ñoo leen teewal fii ci réew mi ñuy nag uh, waajal la jëm ci wàllub siiwal la nga xamante ne rek uh, mooy uh, di jëm ci wàllub njënd ak njaay ci continant bu Afrique benn fan lay doon ci weeru janvier xew-xew bi nag jaw gu ñu denk wàll njënd meek njaay mi moom moo teewoon ubbite gi Ibrahima Ndong muy ndaje bu am solo. buy dajalee ñi nga xamante ne ñoo di nguur gi secteur privé bi société civile waaye taskati xibaar yi association des consommateurs ak i ñeneen muy loo xamante ne nag lu am solo la ñu fiy waxtaanee lépp loo xamante ne dafa jëm ci zone libre échange continentale africaine di kuréel boo xamante ne kuréel bu am solo la. secteur privé bi ñun mun nu ñëw rek dem décider loo xam ni day impacter seen avenir loo xam ni peut-être mun leen indil ngaañ ba dootuñu jaay ba mu indil leen yeneen yu ñu xamul. wono ñun lolu bala ñu ci dem à chaque fois ñu waxtaan ak ñom ñun ne ah fi gën wara tek sen tank parce que ñun li nañu gëm li nañu am capacité su ko défé ñun ñu défendre que suñu dellu sé tamit bi ñëw waxtaan ak ñom ñu né ah dem nañu waye xam ngeen aussi soy dem pour waxtaan du lepp ngay am am nañu li mais lii mënuñu ko am mais lu ñu mënul am nan ni def ba mu baña nek ngañ ci yeen kurel bi ñu duppee Zelekaaf nak amal na jëriñ lool ñi nga xamante ñoo di secteur privé sénégalais bi naxté dina tax ba ñu gën ñongal bu baax seen liggéey paré nañu waxtaan nañu ak ministère du commerce secteur privé ànd ak ministère ministre du commerce mission yu qui ci sous région bi pour discuter ci produits ci douane bi ci ci fraude bi ci dumping bi discuter ci lépp donc tay mën naa wax mën nañu avancer parce que lépp du ni lépp paré na

muy loo xamante ne nag lu am solo la kilifa yi fas yéene ko jëmmal premier er janvier bi ñu dëgmal. jërëjëf Ibrahima Ndong jaww gi ñu denk wàllu pétrole ak énergie moom nag door na di nemmeeku barabu liggéeyukaay yu lonk ci kilifteefam dem na sa ANER Petrosen Trading ASER ak CRCE ah, mu demee nag teeru nañu ko wane la nañu ko ak ñoom nag la ñuy liggéeyee ak it nag la ñu toogee ñu déglu jawriñ gi tey dañu xëyoon euh, bi ñu defee séminaire ba pare ma dem ma ñëw nammeeku nit ñi fi ñuy liggéey xool leen pour mën a saafante ak ñoom ndaxte lu mu dàqee mooy sooy liggéey nit nga xam leen ku nekk gis la ngeen mën a waxtaan et ubbil leen sama bunt ni leen fu mu nekk nii li nga xam ne président de la république man la ko dénk nii ma koy sant di ko si gërëm ñoom laa si yaakaar ndaxte suñ ma jàppalewulee rek du ma ko mën a def commission régulation banque fii la ñu mujjee xëy nañu dem ANER

mooy structure de santé ak jàppale population yi xëj na la doon xaar pour liggéey ko jotuñu ko ba tax na ba objectif ñu leen assigné woon jotuñu ko mais yaakaar nañu 2021 bi su soobee yàlla ah ñaan nañu yàlla xaalis bi doon tuddu ko dugal si Covid bi dinañ ko jox ñu liggéey parce que suñu waxee lampadaires yi soxla dañu xaalis suñu waxee ne électrification euh, énergie renouvelable euh, par exemple biodigesteur ak yooyu yëpp dinañ soxla xaalis xaalis boobu nga xam ne rënkoon nañ ko 2020 euh, bi ndugalaat leen ko ndaxte su naw rek mais itamit euh, salaire c'est ndaxte loolu nous avons gën a joytu agent buy liggéey nga ne weer bu su jot la nga nga a le sa agent boobu du mën a liggéey loolu dañ ministre des finances président ñu seet naka la sécuriser salaire agent yi si yi mais itam conditions yi ñu conditions yi tamit des na mais dans de meilleures conditions su ministère ru ICS bi daan nag sotti eh, tooke ca géej gi ci dëkk buñ naan xonjo mu nag eh, toxal nañu ko beneen bu yees boo xam ne dugal nañ ci juróom-ñaar téeméeri million suñu koppar eh, moom la ñu amal ci beneen dëkk jaw gu ñu denk wàllu ñu demoon na xool nag tolluwaayu liggéey ba ndax dafa am tamit ay yoon yu koy gunge yoo xam tamit dugal nañ ci lu toll si ñeenti téeméeri million ci suñu koppar te waa ICS ñoom ñoo def lu ñu mel bu mbay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 à peu près def nañ ci presque 700 millions de francs. jëwriñ ji yor alam bi Abdou Karim Sall rafetlu bu baax liggéey bi. damay euh, damay sante Yalla bu baax euh, di remercier bu baax population yi nga xamné fekk nañ leen euh di am bu bu baax également euh, ginaaw li nga xamné mom lañu joxone comme joxoon euh ICS pour ñu délocaliser li nga xamné mom mo doon émissaire xonjo bi tay ji délocalisation bi nekk na une réalité di remercier bu baax ICS ginaaw bu ñu. Euh, comprendrait que euh, il était nécessaire ñu délocaliser émissaire bi parce que euh, c'était une demande forte des populations et son excellence le président de la république daf ñu ñu suivre question bi avec beaucoup d'attention émissaire bobu non nekkoon Xonjo délocaliser nañ ko yóbbu ko fii sore sore sore sore population yi benn ñaarel bi moy analyse yi nga xamné dañ que soient les résultats analyse même bu Euh, euh, produits yi nga xam ne moom lañ doon déversé ci géej bi amul woon tooke euh, li gënoon rassurer population bi moo doon ñu délocaliser li nga xam ne mooy émissaire bi. émissaire bi nag mi ngi ci àll bi foo xam ne sori na lool dëkkuwaay yi ku fa dem yaa ko fa fekk ngir ëllëg kenn bañ koo ñaxtu. jërëjëf Abibou Mbaye ngir nag eh, napp gi ci wàllu gox yeeg gox goxaat ci jaar yoon faw napp gu mag gi nag eh, mën a jaar yoon loolu moo tax ba kàngam yi eh, daje nañu waxtaan sottante ay xalaat ngir xool ban plan bu yees moom la ñuy jël dalu jëne gu ñu dénk wàll gi lu mu bëggoon rek mooy soppi xar kanamu boobu napp ñu ànd sa kaltom gay ngir nak napp gi ci biir gox goxaat yi daal di gën suqaliku koy mu mel ni nag ñu bëri ñooy liggéey ci buubule napp waaye nag gis nañ ne at yi weesu rek dafa xaw a daal di sooxe ngir nag daal di koy suqali am na ab plan buñ tëral ngir rek mu daal di gën a jëm kanam. ñu bëgg a relancer nekk ci contexte boo xam ne dañu wax nañu béy dunde nañu napp dunde loolu dafa war a tax ñu suqali pêche continentale parce que njëriñam yëpp ci côté boobu la war a dem donc bu ñu loolu moo tax ñu xoolaat stratégie bi. pour mën si jox ay ay ay ay tegtal yoo xam ne wóor na nga xam ne loolu buñ ko doxalee fii ak cinq ans daañu am pêche nappu dex boo xam ne euh, développé na te dinañ si mën a am ay ay ay njëriñ njëriñ yooyu nag mooy si li ñuy lekk d'abord parce que pêche continentale vocation boobu la am euh, ensuite ñu mën si créer ay emploi ay liggéey parce que ndaw yi fay nekk daañu mën a napp bu fekkee ne maar yi ensemencé nañ leen ñu repeupler leen gàncax bi dina fa sakkan ñi ñu mën see napp. ñëpp ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci boobu lépp secteur nag daal dinañ daje ngir waxtaane boobu lépp plan bi lépp plan nag dafa am ci ñett yoo xamante ni ci la tënku. secteur bi ci relance pour relancer ko nag dañu dañu définir ñetti axe mooy bi ñu wax en fait la gouvernance la gouvernance ak euh, ak euh, tout le volet juridique comme ni ko waxee un texte de 1963 ne peut pas gérer des actes mënul. Euh, régir euh, <coughs> et activité au 2020-2021. donc c'est le premier axe Nous avons aussi la gestion durable des ressources gestion durable des ressources c'est que nous faisons euh, euh, ressources nous ñu gérons, gérer ba nga xam Sénégal troisième axe la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire donc nous ñetti des points nga xam nous ci débattre. napp gi ci biir gox-goxaat yi nag mm. dañ koy def ci juróom-ñeenti gox rek yoo xamante ne ñi ngi si Sénégal ci fukk ak ñeent yi ñu am moom nag am na rôle bu am solo rek boo xamante ni mi ngi koy def ci biir dëkk bi. ñii di askan wi tamit ñu ngi ciy bénéficié woo plan bu wees bi ñu tëral nag dina tax ba secteur bi daal di gën a suqaliku waaye itam daal di def li ñuy xaar ci moom. jërëjëf Kaltoum Gueye Laye ya, Laye Matar ñi ngi eh, man la eh, fetu Noël yi gannaaw yi nak nek lo nga xamantene dañ ko ci soxla rawat nak ab eh, dend yi waaye nak ñi nga xam ñoy jaay la ñoo ngi xaar client yi gisaguñ leen bu baax bah. baax way dañu japp ne rek yi mbass mi moko waral ñu an sax Ndeye Koumba jaay midi legi mu jot fi ci koloban mustafa mbay mi ngi xaar ay client mom nak mi ngi jaay ay ginar ay copine ak yeneen façon yu bari depuis lu ëpp ñaar fukki at. dend am na vingt cinq mille am na vingt mille am na quinze mille trois de prix waaye am na per cent vingt cinq am na per cent dix mille am na per douze mille am na per dix mille. at bii nag amul ay clients yu bari mu ngi yaakaar ne lii coronavirus bi moo ko waral. bon njaayu ren bi de moom li ma la ko mën a waxee mooy li ma gis nii. par rapport ak yeneen année yi ci ginnaaw ren moom dafa mel ne dana xaw a doy waar xaw ma affaire feebar bi la nag xaw ma mais bagage yi daal tey la vingt et un clients yi ñëwaguñu te bagage yi bari na. marché Tilène nag xumb na lool dem beeg ñëw bi tamit bari na. ñu ngi waajal bu baax feetu Noël yi jënd na dend boo xam ne juróom-ñetti kilogramme la maa ngi ko jëndee juróomi junni ak ñeenti téeméer ren nag mën nañu wax ne njëg yi yokku na bu baax. kilo jaaykat bi ñu fi fekk nee na client yi doon am at yi weesu moo ëpp fuuf waaye nag mi ngi yaakaar ne dina tane client yi ñi ngi jënd ginaar yi waaye dend yi lañu gën a jënd. mais dend bi moom daana jar année yi passé quoi par rapport cette année ndax année bi virus bi maanaam moo empêché maanaam kii bu bari daal maanaam njaay mi demewul noonu quoi clients yi nag benn rek que ñu ngi ñëw quoi mais nag nekkul comme d'habitude ni ñu daan jëndi quoi mais nag ñu ngi ñëw benn benn quoi. jaaykat yi nag ñu ngi yaakaar ne fii ay fan yu néew situation bi dana changé loolu nag dina mën a tax at mii di jeex daal di gën a neex ci ñoom.

Nous avons ay communautaire lañu am nañ ci Richard Toll ak Touba ñett ci Mbour ak Saint-Louis Dakar Plateau Kër Wakam Wokam ak Ben am ci ci Amitié de Durbel, Fatik, Gossas Goltapé, HLM Kaulach, Marist, Matam Mermoz Ngor Norfoir, point E Rufisque Yëmbal Yoof ak zone B fanweeri malade ñu entré woon hôpital wér nañu bës ni tey dinañu génn bu ci yàlla ànde ñaar fukk ak juróom-ñett malade ñoo nekk réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu dëmb altine ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre mi nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junne ak juróom-ñaar ak juróom téeméer ak ñeent fukk ak juróom ak juróom ci ñi nga xam ne jot nañ ci jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-benn ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar wér nañ si ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñetti fukk si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a ak digle yi muy joxe bu di bàyyi xel ci seeni masque masque dañ ko war sol ci anam ñu ko di mur gémmiñ ak bakkan di raxas seeni loxo ndox ak saabu wala di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité di teel jog jóg ci seen bopp su dee da ngeen a feebar dem ci hôpital bu leen wala ngeen ak seeni docteur mbokk yi ñëwee di takk masque yi di raxas loxo yi te di def gel te bu ñuy toog nañu may tante ci lu toll ci benn mètre nga mën a mucc ci feebaru coronavirus bi ne sax ñu ànd ak Rose Cissé ci xibaar ci Mandeng ma ne di ñaan ba ci jàmm salaam.